ñuy wax émergence bon mën naa wax ne dañoo bëgg à partir de janvier 2022 suñu ville Dakar ville capital ñu sentir que ne ñi ko yore am nañu taxawaay ak xalaatu yëkkati ko ba àdduna bi yëpp di ko gis man ngeen ma wax mais 2012 ba léegi Sénégal mi ngi émergent président Macky Sall di si def lu takku ak lu baax ba dëkk bi ñu gis vraiment li fi am ni muy bouger may am fierté bu ma gisee dakaar gi xamante ne ñun danañ ko gérer bientôt yoraale BRT muy loo xamante ne ñu bëri foogoon nañ ay gént la mais réalité BRT c'est bientôt et ça va Dakar suñu dëkk le TER à partir vingt 27 décembre dana daw du gént le train express régional day daw loolu nekk itam si Dakar ñetti gaar yi si gëna a moderne d'ailleurs si biir Dakar lay nekk bon nag émergence boobu ñun ñi yore ville bi dafa war a méngoo ak ni ñuy yore suñu ville malheureusement bu ñu ko bàyyee si loxo yi ko yoroon boobu ba léegi lenn rek moo leen soxal mooy nañu nekk maire pour que li ñu askan bi di nattal pour que ñu jaamu ci seen soxla au lieu que ñu jël ci jaamu ci seen soxla mais nañu jël loolu benn soxla lañ am mooy xeex régime bi fi nekk mais xeex régime du programme de ville programme de ville mooy lan mooy soxla yi ak soxla yooyu naka lañ koy euh, saafare ñun bu ngeen ñu joxee la ville de Dakar le 23 janvier 2022 incha allah danañu taxaw ci seen soxla bu njëkk parce que étude bi ñu def pour xool lan mooy seen soxla étude boobu moo ñu wan ne seen soxla bu njëkk da ngeen bëgg dëkk bu wóor boo xamante ne sécurité daf sa am dana danañu leen fekk seen biir quartier yi en rapport avec les forces de défense et de sécurité les délégués de quartier tegal leen fa ay jumtukaay yoo xamante ne di ngeen xam ne le maire de la ville ak équipe am ñi ngi leen di gunge ci seen kaaraange loolu dafa am solo danañu ko def beneen élément bi am solo tam muy loo xamante ne yéen waa dakaar ci étude yi ñu def yéen ñu wax ne daf leen soxal mooy seen cadre de vie da ngeen bëgg quartier yu set da ngeen bëgg dakaar bu méngoo ak li ngeen di xaar ci set da ngeen bëgg rue yoo xamante ne amul encombrement da ngeen bëgg tali yoo xamante ne ensablement bi du ci nekk c'est-à-dire suuf su bari kenn mënu ko dindi da ngeen bëgg épave yi ñu dindi ko da ngeen bëgg dëkk boo xamante ne dëkk bu leer la ba képp koo xamante ne dafa ñëw dakaar rek da ngay xam ne Dakar neex na wane loolu ñun danañu si liggéey mooy lu ñuy wax cadre de vie may ñëw tam très rapidement si beneen élément boo xamante ne les jeunes de Dakar ñoom ñoo ñu wax ne daf leen soxal mooy le sport et les loisirs Dakar dafa war a ne rek dëkk boo xamante ne képp kuy def sport boo fu ñëwee di nga xam ne la ville am na une politique sportive la politique sportive dafa nekk loo xamante ne bu ko ville bi amee képp ku yëngatu ci sport muy ASC muy club boo xamante ne club bu nekk ci biir Dakar la muy même les activités de quartier képp koo xamante ne rek yaa ngi def sport di nga sentir ne sa ville bàyyi na la xel parce que teg na fi loo xamante ne booy def sport di nga ko mën a utiliser loolu mooy politique sportive politique sportive malheureusement gars yi amuñu ko mais ñun dañ koy am pour que moom muy guider suñu action en matière de sport le loisir aussi Dakar nekkoon a dëkk boo xamante ne boo ne loisir dañ ko daan ràññee mais malheureusement loolu yëpp dafa mel ni gars yi dañ ko xewil xewiluñu ko sax mais dafa newul ci seen vision alors que ñun dañ koy intégrer comme mu nekk un élément important de notre stratégie mooy lépp lu jëm ci loisir dakaar ville culturelle dakaar ville culturelle mais dakaar boo xamante ne artistes yi dañ si am seen place Dakar boo xamante ne les artisans dañ si am place l'artisanat d'art Dakar boo xamante ne dañuy sentir que mi ngi yëngatu si wàllu culture ñun am nañu politique culturelle boo xamante ne mi ngi si suñu programme dañ koy offrir au wa am na aspect boo xamante ne peut-être évoqué uma ma ko woon si nasaraan ma dellu si mooy notre politique culturelle Dakar jàkk yi ak église yi day bokk si ñun li xamante ne daf ñuy soxal pour que ñu indi fi suñu loxo considérablement parce que dëkku jullit lañ nag dañu am effectivement ay aada dañ siy taxaw bu baax en tant que maire de la ville man maak équipe bi may àndal mais avec les maires yi xamante ne ñoom ñooy nekk si collectivité territoriale yi mooy les dix-neuf maires yoo xamante ne maak ñoom il faut que ñu déggoo il faut moom harmonie dans ce que nous faisons beneen aspect bi ñu yaakaar ne am na solo mooy lépp lu jëm si mobilité Dakar des fois day xat tey dema marché jafe na trop ñu bëri ñoo xam bu ñu yoree seen oto seen problème mooy bëgg nañu dem mais bu ñu demee fu ñuy gaare Dakar léegi parking tumuranke na fi dafa jot nag ki xamante ne moo yore ville bi mu sentir ne parking yooyu en vérité moom dafa bokk ci mission mu organiser xool naka la ñuy def ba ville bi am ay parking man en tant que futur maire de Dakar en rapport avec les 19 maires des communes de Dakar danañu taxaw ba Dakar am ay parking yu ñu mën a gaare projet boobu nekk na bu baax ci suñu programme élément important mooy les marchés marché yi Dakar dañoo war a nekk ay marché yu set marché yi Dakar dañoo war a nekk ay marché yoo xamante ne dafa am une ergonomie interne marché yi Dakar dañoo war a nekk ay marché yoo xamante ne ña fay jaay mais aussi ña fay dem di jënd buñ ñëwee dañoo war a xam ne nekk nañ ci benn cadre marchand boo xamante ne cadre bu baax la mais loolu nag il faut nga xam ne yow la war li la war du ñëw rek jël ay tax mais boo jëlee taxes ci marché ba pare da nga leen ko war a delloo ci service loolu mooy li xamante ne ñun en tant que maire de la ville incha allah en relation avec les 19 maires de la ville de Dakar danañu ko def pour les Dakaroises et les Dakarois wàllu éducation ma dellu si suñuy xale yi nekk Dakar danañu taxaw ba ñu xam ne ñun ñoo leen jur parce que nag xale yi comme disait le chanteur la chanteuse plutôt ku leen juróon yërëm leen ñun dana ñu leen jur mooy taxaw ba fekk leen jàppaleen seen jàng mooy jox leen lu ñuy wax ay cantine scolaire am na xale yu bëri dañuy xëy du ñu ndekki dem jàng xiif bi bañ leen rey rey mais il faut que ville bi loolu intéressé ko ce sont des problématiques qui doivent qui doivent intéresser la ville ñun en tant que ville danañu intéressé mais en plus des cantines am na lu ñuy wax ne ubbi tey jàng tey te son excellence le président Macky Sall initié ko ak le ministère de l'éducation ñun ville danañ si indi suñu contribution pour que dans les écoles de Dakar le ubbi tey jàng tey soit la responsabilité aussi de la ville loolu danañu ko def école donc yu ñu bëgg ay écoles yu am solo lay doon mais santé ak action sociale tam dañ si liggéey lu wër pour que képp ku ñëw si centre de santé Dakar yi ak si poste de santé Dakar yi ñu xam ne ville bi bàyyiwu ko état central mais mi ngi siy def loxoom bu baax a baax a baax pour que mu am un référentiel de santé boo xamante ne c'est un référentiel très valorisant ici au niveau donc de notre territoire qui est Dakar may euh, passer sous silence Dakar ville intelligente Dakar mooy capitalu Sénégal mais boo ñëwee si ville capitale da nga war a sentir ne am na un élément de modernité am na lu fi bees am na ay xarala yu ñu fi utiliser méngoo na ak jamono au plan international bon Dakar ville intelligente danañu mettre en place un dispositif buy promouvoir lépp loo xamante ne start-up yi nekk Dakar ñoom ñoo koy développer pour que donc Dakar mën a utiliser les nouvelles technologies de l'information et la communication may terminer rek très rapidement si wolof bi wax ci gouvernance moom laa jiitaloon sànq mais cette fois ma terminer ci en wolof parce que projet yi ñuy def yépp ma wax leen ko ñu bëgg ko def ci dakaar bu fekkente ne yorin bi baaxul mook dara ñooy moo tax yorinu dakaar dañ ci bëgg a taxaw pour mu nekk yorin bu mucc ay lu tax ma bëgg ci insisté parce que très souvent gars yi dañ leen di fal avant ñu gisaat leen mooy bés buñ bëggee ñu falaat leen man de ak l'équipe bi xamante ne ñoom ñooma ma maa ngi leen di wax ne du demee noonu bu ngeen ñu falee danañu def la conférence territoriale de dakaar mooy ndaje boo xamante ne képp ku mu intéressé ci Dakar rek nañ la wax nga ñëw fekk ko boo ñëwee indi say priorité ñu xayma la fa jële lépp loolu la ñuy dugal sur la programmation de la gestion de la ville si loolu lañuy taxaw pour mën a defar suñuy budget loolu mooy tax ñu xam priorité yi mais duñu yem foofu bu ñu defee conférence boobu ba pare bés bu ñu géré ba mu sotti danañu dellu seen kanam ne leen ñun kat li ngeen ñu dénkoon lii mooy priorité yi lii lañ si def pour que ngeen mën a xayma est-ce que seeni préoccupation intégré nañ ko dans la mise en œuvre de ce que nous avons fait man ngeen ma ne mais li fi newoon xanaa dafa doyul doy na mais li fi newoon ñi ko seq mooy ñi ñu fal rek mooy les élus mais dañu bëgg a transcender tout cela dem au-delà des élus jéem a fexe ba am une dimension participative buy impliquer les populations à la base loolu incha allah danañ si taxaw mooy nouvelle approche de gouvernance danañ ko def si jeunes yi danañ ko si famille danañ ko def si commerçant yi dañ ko def effectivement si entrepreneur yi dañ ko def si ñëpp ñoo xamante ne ay acteurs à la base lañ au niveau de Dakar may euh, finir par euh, quelques éléments rek yoo xamante ne ay éléments wu élément wu koom la li ma fi wax lépp mën nañ yaakaar ne dafa bëri que budget Dakar antalu ko ma ne déedéet bu kenn foog loolu parce que xam nañ ne budget Dakar antal na loolu si ay fan naka la ko antale mooy déjà li ñu am il faut que ñu am fu ñu ko jaarale dans le cadre d'une rationalisation ñu xool naka lañ koy affecté aux priorités bañ ko utiliser rek de manière politicienne il nous faut une gouvernance de développement de la ville de Dakar beneen aspect bi mooy que ne il faut que ñu am ay ressources externes il faut que ñu génn biiru recette yi xamante ne mooy recette ville bi pour dem wuti ay recette feneen la coopération décentralisée c'est vrai mais bu dul coopération décentralisée en rapport avec l'État centrale war nañu mën a sax ab war nañu mën a ab pour dugal sur ay projet structurant de la ville mais booy ab nooy abbe il faut que am koo xamante ne moom moo lay garantir booy ab moom moo naan yaa ngi àbb mais man nekk naa ci sa gannaaw pour que bu buñ la abalee boo defayaa ma fay kooku état bi lay doon bon nag ñun danañu liggéey ak état bi ànd ak ñoom dans une cohérence globale parce que encore une fois ville de Dakar collectivité locale la te collectivité locale démembrement wu état la danañu ànd ak état pour que bu ñu soxlee ay ressources yu takk yoo xamante ne dafa laaj ñu àbb ko état bi garantir ñu ñu demander état bi mu garantir ko day fekk nag suñu projet bañ a nekk daaneel état parce que projet wu collectivité locale du daaneel état am na ñoo xamante ne amuñu projet de ville benn projet de ville rek la ñu mooy taxaw pour daaneel l'état ñun suñu projet de ville mooy taxaw pour jaamu soxla waa Dakar ak jaamu soxla waa Dakar loolu laa leen naa leen ko wax maa ngi remercier bu baax asalaam jërëjëf jërëjëf monsieur le ministre defe naa waa Ndakaaru ñu ngi lay déglu waa Sénégal ñu ngi lay déglu